di la ziar. delloo naa leen ziar bu wér a wér a wér. Euh, bi ñu la maslawoo ci tiis bi nga xamante ne am na ci wàllu théâtre suñu papa Bass Diakhaté alors yaakaar naa ne tey euh, bu ñu la xamee ci moom la gën a xamee ndeysaan euh, mu génn àdduna lan nga ñu mën a wax ci moom ak yan seede nga ñu mën a defal ci moom. Bass amatul lu ñuy wax si moom ndax xam nañ ne Bass Diakhaté monument la lii rek wan na ko tey ndax Bass. tey ba ma gisee artistes yëpp ñëw teew ma gis fi ay yeneen doomu aadama yoo xam ne du ñu artiste sax ñëw teew si bés bi si laay doon xam ne ne bas lépp lu ma doon wax si moom dëgg la ni monument la nit ko wàccee woon boppam bas Jaxate théâtre man ak moom boolewuñu bas sama papa la sama xarit la sama complice la sama àndandoo la mais du théâtre moo ni boole bas Jaxate sama booyu papa la woon magam ak sama papa ñoo doon jëflanteel Bass Jaxate bu mu leen ne sama séesu ngént moo ko moo ko rangale sama séesu ngént moo ko rangale ba ma duggee néegu góor Bass Jaxate moo nekkoon sama salbe ba may dugg tamit si théâtre may commencé intérêt Bass Jaxate moo ko opposé ba ñu bàyyi ma dem defi théâtre kon Bass Jaxate du lii moo ñu boolee yàlla def ñuy ànd boobu ba léegi ba ko dal nii dal ko te balaa mu doon dem dafa joxe ndénkaane ndénkaane boobu mu joxoon nag moom laa matale nii tey Bass Diakhaté feebar na amul kenn ku ko yëg bëgguñu woon kenn ku ko yëg lu waral loolu mooy professionnel day liggéey day def yëfu professionnel toog di def ay ket ak affaire yooyu dañ lay xamal waaye duñ la fajal ñu jël ko en charge nag jël ko en charge bu rafet euh, waa SODAV jël ko en charge direction des arts jël en charge le ministre de la culture jël ko en charge Matar moo nekkoon intermédiaire bi ci loolu yëpp ñu koy dox ak euh, Kader Kader Jara ñu nag ma leen gërëm di leen sant bu baax a baax am ay ñoo xamante ne comme waa Décopin xam naa ngeen baal ma ci publicité bi sax parce que ñooñu tamit dañ ci def rôle bu rafet daal les grands Ablaye ñoom ñëpp ay am di ñoo ñëpp ñëw taxaw bas euh, bas dem na ba wér bañ yaakaar deux jours sax day génn bañ na ko boo génnee dañ lay def am ku lay ñëw di lay defal pansement yi foofu mais ba su dee bokkul ak dara feebar mu xëy rek am malaise malaise boobu nag nekk naa naag moom ba presque une heure matin dama ñibbi sama kër teg sama bopp si kaw lal même pas deux heures temps ñu woo ma ne ma wàcc na liggéey ma dellu si waat loolu mbiru suñu borom la man bu ma sañoon daf may gunge ba si kanam kanam ndax moo ma teete dugal ma si lépp lépp xamul dugal naa si mbas moo ma si dugal. yan kàddu la la mu jeexee. waaw kàddu yu ma jox na xam naa ne Sénégal yëpp moom lañ doon xaar ma koy wax dañu toog mu woo ma ne ma Tony moo xam ne ma damaa bëgg bu ma génnee àdduna nga yóbbu ma ma koy tooñ sax naan ko yow da nga yow yow nekkoo kuy dee léegi yow yàlla soxla bu la mu ne ma bëgg nga dëjal ma jël dëj bi yóbbu sama soxna fii si parcelle woo sama soxna si nga xamante ne moo nekk Louga nga waxal ma ne ko toog ñu dëjal ma defe naa ne lii bu ma ko deful woon dinaa ko war may gërëm soxnaam bu baax a baax soxna Mariama ak soxna ko ma leen gërëm bu baax ndax taxawaay bi ñu taxawee paa bi soxna Mariama ba paa bi nag këlëb ñu dugg ko si hôpital depuis jour boobu la gëjoon si kër gi xam lu ko delloo si kër gi paa bi wàcc na liggéey loolu moo ko indiwaat si biir kër gi yàlla xam na balaa ñu laa mën a euh, gëstu say mbir rek lu mel ni euh, il y deux ans ou trois ans de cela parce que naa si spectacle bi doomam rendre na ko hommage rëy au Grand Théâtre National euh, naka nga gisee parce que il si mel ne Bass Diakhaté def nañ si théâtre bi loo xamante ne nii vraiment tey waruñu woon xaatee li am li yi kontaan naa trop si question parce loolu neex na ma trop ndax les dañ si dama ci dox lu bari xam naa ñu bari gis ñu ma si kii bi mais li ma si dox bari na Sénégal moo demee noonu. sénégal tant que deewoo du la rendre hommage te ba ngay dund si lañ la war a rendre hommage parce que boo lay 40 ans la Bass Diakhaté rek hommage la si moom euh, ñun nag suñu autorité man du ma man du ma xas kenn du ma wax kenn dafa am ñoo xamante ne seen devoir la ñu xamul waaye damay wax benn affaire tey le ministre de la culture bu bees bi Aliou Sow bu fekkee ni mu débuté nii noonu la koy terminé gëm naa ne ñu ngi doog am ministre de la culture ndax euh, nga nekk Abu Dhabi ñu woo la téléphone ne la Bass Diakhaté dafa entré hôpital nga dagg lépp nga bàyyi lépp jóge Abu Dhabi wàcc si avion bi ba nga wàcce si avion bi noo def jubali directement ñëw si hôpital bi ñëw na jël naa lépp en charge langoo naa lépp kon nit ku mel noonu bu ko defee dañ ko koy seedeel wax ko li nga xamante ne moom la def ñu ko si jaajëfoon artiste yëpp nag dégg na wax naa la artiste day doon professionnel boo jàppee sa bopp amateur foo jaar ñu lay ketal boo amee ay buntu yoo xam ne war nga fa mën a jaar ñu faj la da fay dem ñoo la que professionnel dafa war a def boppam professionnel tey jii ay ñaan ñun nañ ko ketal man dem ko mu sa bañ moo tax bas feebar na ba génn déggu leen koŋ-koŋ déggu leen waŋ-waŋ ñu bëri xamuñu woon ne feebar na et pourtant jël ko en charge ñu ko war a jëlee en charge ko waral mooy affaire professionnel lañ ko def di si gërëm Matar bi bu baax a baax a baax parce que mënoon ñu dugg si réseaux sociaux naan paa bi dafa kii noonu boo liggéey dañ ñuy xamal mais lu ñu fajal ma bëgg nag artiste dëggal seen bopp nga xam ku si feebar nañ jaar si suuf dem def lu ñu war a def yëpp jël ko en charge def ko yéen journalistes yi tamit gërëm naa leen sant naa leen bu baax gis naa seen taxawaay tamit dafa depuis lool boobu ba léegi jógu leen si yéen ngi topp jour yi jour par jour am na ñoo xam sax dañu fekk ba Touba ànd ak ñun ba Touba ñëwaat bésu bésu sarax bi nag ma gis leen fi kenn manqué gërëm nañ leen sant na leen bu baax yéen journaliste yi gars yi dañuy wax réseaux sociaux mais yéen boo leen fi am woon mu ñaaw waaye nag problème bi mooy nañ bàyyi di kaañante si réseaux sociaux yi tey waxante dëgg si biir réseaux sociaux yi te bàyyi saagante bi si réseaux sociaux yi bàyyi di tuumalante si biir réseaux sociaux yi ñen boole boole suñu xoolee doon benn ñun ñëpp si réseaux sociaux yi loolu mooy mais bu fekkee dañ fi nekk kenn ku nekk di sànni sa morom taraat du ñu avancer mukk te monde théâtre dafa doy waar c'est que nag gars yi itam dañuy jaawale euh, quatrième art ak septième art si loolu mooy problème bi il faut ñu xam kenn ku nekk côté bi nga féete bu boobaa kenn ku nekk di nga xam fi ngay dal ma leen gërëm dina sant journaliste yi bu baax a baax je vous remercie ba pare di leen jox mention très très très très très bien gërëm naa leen sant naa leen je vous remercie merci alors comme ah, naa ne ku nekk nga xamante ne mooy école la woon def nekk ci wàllu théâtre alors perte boobu la lay def ci yéen perte bi du man kese maa perte man Tony man nga xamante ne maa doon def ak moom ay man kese perte ma monde monde cinéma monde artistique ñoo perte ndax ban boo ko laala sur scène ma nga fa boo demee si cinéma bi tamit ma nga fa kon du man maa perte ñun ñëpp perte dëgg la man dinaa ko sentir parce que dafa am création yoo xam ne dañ ko jot a def te waroon ko génnee décembre ndax répété woon nañ ko defal ko ba pare mais yàlla moo dogal lii lu yàlla dogal nag kenn mu ci dara dañ koy sante yàlla suñu borom bu baax ñu la koy jaal bu baax da ko ñaanal suñu borom xaaral ko àjjana yow aussi suñu borom guddal saw fan ah, ci barke Seydina Muhammad jërëjëf kontaan amin amin amin yaa rabbal alamin li nga ñaan yooyu yéen tamit journaliste yi yàlla na leen jàmm sonal yàlla ngeen nekk ci jàmm ngeen bàyyi sànni xeer yi dégg ngeen je